wa nadratun bi ayni raxmatihi tusayiru alkaafira waliya aljannatu liman ataahu walaw kaana cabdan xabashiya wannaaru liman casaahu walaw kaana sharifan qurashiya axmaduhu subhaanahu wa taala wa usalli wa usallim ala safati xalqihi wa axibbi axibbaaihi ilayh sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashaabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin ixwata al iman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yéen mbokk waa Louga TV euh, ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di am kontaante bu baax ci seet bi ngeen ñu seet si euh, ak bàyyi xel gi ngeen ñu bàyyi xel ñu ci am mbégte bu baax a baax a baax di ñaan yàlla subhaanahu wa taala itam li ngeen fi yaakaar lu mu tuuti tuuti yàlla na ngeen fi for dara euh, su fekkee du ngeen mën a jël la leen taxoon a jóg itam ngeen for fi dara yàlla na ko yàlla def ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah mu mel ne nag dañu noo dañu nu santoon ñu wax suñu xalaat ci actualité bi nga xam ni moo nekk ci àdduna bépp mooy ataawun te mooy mbas mi nga xam ni moom la yàlla wàccee ci kaw doomu adama yi mbas nag li koy wàccee toujours mooy mooy yàlla goo xam ni doomu aadama yi dañuy dem nag ba jéggi ci dayoo yàlla bëgg a wone boppam wone ni mënu leen dara xamu leen dara sañu leen dara moo tax muy yee ci jaraasim yi nga xamante ni nii moom la am euh, ndax yàlla ku bari matériel la am na ca ñeenti nag yoo xam ne daf leen bàyyi ñuy nelaw te buñ yeewoo yeewaale yeneen yàlla am na ndoxam garde ko bu ëppee alak doomu aadama yàlla yor na safaraam denc ko ci biir suuf te bu ko yeewee mu alak doomu aadama su ma waxee loolu xëy na ñu am ñu ko dul xam waaye li ñuy wax al barakin te mooy ay volcan ñu ngi ci biir suuf di nelaw te e, bu na ñëpp xam ni arme yàlla la boo xam ni moo ko garde yàlla mi ngi ngelawam bu ëppee alak te buy ñëw dana indaale lu mel nii muy jarasim yi yàlla mi ngi itam tàngooram woo xamante ni bu ko indee bu ko neexee bu ëppee mu def mu si ba mi ngi seddaay itam loolu yëpp nag comme du fi xaj dañ leen koy junju rek xam ni yàlla bari le na donte am na lu mu dénk doomu aadama ba mu yaakaar ni moom kese moom moom lépp mooy gi nag saa su baree yàlla nee na léeg-léeg ma defal leen lii wala nabluwannakum bi cheyin min al xawfi wal juuci wa naqsi min al amwali wal thamarati wal anfus waaye wa bashiri sabirina alladina ida asaabathum musiba qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun ba aaya ba jeex yàlla nee na bu ngeen ma moyee moye moye moye ba defe nag yéen a moom teer seeni luwaa yoo xamante ni nii tegwul fenn ngeen teggi samay luwaa bu boobaa nag léeg-léeg ma ni indil leen loo xam ni lu ngeen di ragal la kenn dootu ñeme ah loolu de xanaa ñëpp gëm nañ ko léegi li yàlla doon aaye lépp nit ñi doon ko def ku ñuy wax korona ñëw na tey aaye na ko nun ñëpp ñu di ko def na mu ko bëggee te noona kat ah, bokkoon na ak na ko yàlla bëggee kon nga xam ni yàlla dafay wax ni man rek maa fi nekk ndax am na loo xam ne nii suma leen ko tegoon mu leen di garder comme ni leen policiers yi ga xamoo ne policiers yi di ñëw sax nañ ko boole ci euh, matériel yàlla yi xam nga tey jii ku ma ne woon sama buntu kër gi huit heures moom la fi fekk nit wax ma ko danaa jàppanteeg yow tey ku sol benn teni ñu defal ko ay carte ca kaw loola kese kese kese may ko mu fekk la ci sa buntu kër nii la duggal nga dugg kon yàlla mi moom kooko moom la lam la diggal moom nga waroon njëkk def yàlla waxoon na dee raxasu dee maanaa dee leen jàpp nit ñi lànk nañu ñenn ñi bu ñuy julli dañuy tiim wala sax duñu julli tey nag raxasu force la booy dugg danga raxasu booy génn da nga raxas su juróomi yoon rek la yàlla waxoon de te boo am boo mën a bopp bu la neexee nga def ko benn yoon ndax bu sa njàpp tujul kenn néewu la demal jàppi tey nag booy dugg sa kër sax da nga raxasu gis ngeen bidon baa ngi noonu booy génn danga da nga raxasu fa nga jëm daañ la wax raxasul boo fay génn ñu dugal loo xam ne xamoo lan la ci say loxo te di nga ko jël kon nag yàlla wone na boppam ci gàttal ndax bu ma xuusee foofu du fi génn léeg itam nee na ma defal leen xiif boo xamante ni du ngeen am lu ngeen lekk xamoo nit am na lu mu lekk ba noppi moroomum nitam rek yóbbu ko foo xam ne la mu bëggoon a lekk du ko lekk du ko lekk ñi ñu quarantaine ñi ngi sonn bay bëgg a dee parce que la ñu bëgg a lekk tànnal ko seen bopp duñ ko lekk lañ leen tànnal lañ leen di indil kooku ñoo ñu ngi ci xiif par force alal yi wàññi ko kay am na ndax kenn ku ne fa nga daan jaaye ña ña la fa daan fekk fekkatuñ la fa wala heure ba nga daan jaayee mën naa am doo fa mën a continuer ba jaay fa wala sax ñu tëj ko kon naq si minal am am waali ñëw na waaye ñi ci dee nag wala am fus kenn wérantetu ko ndax kenn xamul ñaata la kon nag kenn wérantewul ni lii yàlla moo ko indi yàlla nag bi mu ko indee te indi woon ko ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam indiwaat ko ci jamonoy Omar ibn al-Khattab am na luñ nu jàngal lañ nu jàngal Euh, xëy na mun naa leen ci wax ñaari xadis rek doy na li may njëkkee mooy alquran dafa wax ni wala tulqu bi aydikum ila tahluka bu ngeen gisee alkondo alkande ngeen séen ko bu leen ci teg seen loxo mukk kenn waxu leen ngeen dugal ci seen loxo kon benn ngi noonu boo xam ne te ni ka ca jàpp ja am na jàppukaay kon te jàkka yi njëkk ya bu leen defee ni mukk ña ko def danoo juum xam naa am na ñu ñu ñu donte laa nag ñëpp duñ d'accord mukk fokk ah, ndax tijji beet am na ñu d'accordul kon kon kon benn kàddu du am beneen bi ci topp itam ah, mooy ni ah, nattu yàlla nee na su ma leen ko tegee nag dana am ñu may xool mooy ñi nga xam ne dañuy muñ ndax loolu lay xool seppee sama jaam yi yi nga xamante ni daa ñu reconnaître ni vraiment lii noon a du yàlla loolu ak a jafe da ngay mere yàlla léeg-léeg nga commencé mere yàlla naan lii lu tax ñu koy def ak nangam bëgg koo jiiñ ay doomu aadama fekk du benn doomu aadama maanaa yàlla subhanahu wa taala moom la euh, neex mu def loolu nga delloo ko ci yàlla yàlla nee na nag dama lay fay ñaari yoon mooy mën na am ma teggil la ko waaye mën na am ma dugal la biir aljanna su ko defee nag nga am euh, ak kiloote yonent bi salaa salaam nee na attaaun mooy mbas mi baqiyatu rijzin aw adabun ursila ala taifatin min bani israil fa ida waqaa bi ardin wa antum biha fala taxruju minha firaran minhu wa ida waqaa bi ardin wa lastum biha fala tahbitu alayha xadis bi cheikhaani moo ko solo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni euh, taawun mooy mbas nee na euh, li desoon ci liñ doon mbugale bani Israil moom la nee na su wàccee ci am réew teg fekk leen fa nee na bu leen génn réew ma di ko daw kon kay xanaa restez chez vous mën naa nekk du dëgg nee na su fekkente ni itam waqaa bi ardin wa lastum biha fala tahbitu aleyha nee na bu ngeen déggee ni ma nga cam réew te yéen demagu leen fa te leen seen tànk kon nga xam ni li ñu def nii daanaka benn la ci diine lañ ko jànge waaye est-ce que waa diine sérieux nañu loolu mooy problème bi parce que da ngay gis koo xam ne vraiment xam nga ni yow am na xam-xam kooku doo ko werante ndax la koy may xam-xam am na ko mooy ay diplôme moom doy na ko sëkk am na ko waaye est-ce que diplôme mooy xam-xam xam-xam mooy xikma xikma yàlla nee na maay jël ku ma neex ma sotti la ko même boo am bu doon xam-xam kese euh, iblis li mu xam kenn xamul lan la ndax iblis dul woon Iblis mi ngi tuddoon Azazil moom la tuddoon jamono ji nga xam ne dafa nekk di ànd ak malaka yi di dem di dox ay service noonu la tuddoon bi mu tooñee yàlla yàlla la ko yàlla tuddee Iblis maanaam ku ñu dàq ci yërmande yàlla foo teg sa tànk Iblis jaamu na fa yàlla xam na lépp it lu ci gën a bari loo xam ne ni ku dul yàlla war nga ko xam rek Iblis xam na ko mais est-ce que xam-xamam boobu jëriñ na ko dara déedéet jëriñu ko dara. kon nit ki kenn du ko natt ci la mu xam mais da koy natt ca la muy jëf mu mel ne yonent bi ba mu waxee loolu ni kon ku mu fekk ci am réew bul fa génn ku mu fekkul cim réew te nga dégg ko cim réew bu fa dem kon loolu la gaa yi defoon bu njëkk bu dee tëj jàkka yee yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ni man sami'a nidaa falam yu yujibhu fala salaata lahu illa min udrin qaalu ya rasul allah wa mal udr qaala xawfun aw marad ñaar yooyu la maa ngi ko doon wax démb ca grande mosquée bii rek maanaa yonent bi dafa wax ni képp koo xam ne nii jàkkaa nga ci sawet nga dégg nodd ga lànk ba ñu dem julli ci sa kër doo julli ñu ni ko ah, doo julli mu ni xanaa nga am ngànt bokk ñu ni ko luy ngànt li mu nga am ragal ragal wala boog feebar kon feebar am na ragal am na kon loolu kenn wérantiwul ni war naa ma a ne léegi nag problème bi nga xam ne man moom laa am lii laa waxoon ca ba ñu tëj jàkka yi mais problème bi ma am man mooy bi ma déggee ñu ni dañoo war a dund ak virus bi léegi maanaam li ñu doon aaye nañ ko bàyyi te jéem a dund ak moom bu boobaa ndax l'islam day resté moom toog fa mu toogoon bañ a ubbi wala day jéem dara moom it euh, l'islam war na jéem ndax euh, bu fekkee ne mbir yëpp ya tatawar umur yëpp day tatawur day am maanaam avancement ñu ne lislaam yow dijul fi nga diju rek nañ la fi fekk buñ demee fekk la fi buñ dikkee fekk la fi yow jéem dara man loolu sama xel dangu ko moo tax démb ma ni leen li ma d'accord man man li nga xam ne moom laa d'accord wu tekkiwul ni nag moom la war a def parce que euh, ñi la dàq jàng nga fa ñi la mag nga fa ñi la ëpp kilifteef ña nga fa kon kenn nga ci njobootu ñooña waaye du tee nag nga wone li nga xam ni moom nga gëm nga wax ko te li ma leen di wax it bu ma toogoon ci kanamu Serigne Moustapha Sy loolu laay wax la muy do la muy dogal nag ci sama kaw kooku moo xam mooy sama sëriñ moo tax ma tudd ko ngeen jégal ma waaye koyit moom lay wax moom xam na ko sax koyit loolu lay wax la mu teg nag bu ma ko xoolee xam ni loola gën ci man du ci ma ciy topp waaye du tee ma wax nun loolu lañ ñu yare su ko defee kon yonent bi ni ku dégg euh, nodd gi te demoo doo am julli bañ ko waxee ni ko lan moo lan mooy ngànt li mu ni boo amee ragal wala boog nga am feebar fun rek la wax nakira mooy loo xam ne amul alif ak laam ndax bu ko amoon day tekki leneen mais dafa dindi rek xawfun la wax wala maradon benn feebar wala loo ragal yoreel naa la bor yow mii te bu ma ñëwee nga ne ma ngiraan mu naa ah, ma ne jox ma sama xaalis vilipande ma ci kanamu gor yi te yoru ma lu ma la fayee bu ma dem juma dara du ci fekk naa julli tisbaar waaw bu fekkee ne feebar bi itam maanaam damaa gis koo xam ni dafa am ngaana wala dafa am lo loo xam ne da ngas daf may wal ma xam ko naa daw bu ma ko xamul nag boobu kay la gën a raw bi nga xam ni xaw ma ku ma koy wàll mën naa am sax man mii di daw maa ko yore kon bu boobaa amul sikki sàkka ni euh, ñu euh, def ixtiyaatan maanaam fegu am na ci solo kooku moom amul sikki sàkk waaye problème bi nag mooy bu fekkee dañoo nañ ne nañ dund ak moom ndax da ngay bàyyi sa jaamu yàlla yi nga xamante ni ñeneen ñay dem ca fa ñu libéré mën nañ la ko indil faf kon léegi yow tamit jéem a la organiser jàkka yi ngeen def ko un mètre man loolu laa xam euh, teg ay xale ci bunt bi def ko un mètre ku bu jàkka ji feesee ñu ni jàkka ji fees na ku am sa sijaada nga indi ndax dañ ñu dañ wax ni da ngeen di dindi tàppi loolu day xaw a metti di ko di ko tegaat bis bu nekk loolu xam nga kenn mënu ko waaye li ngay def mooy indi sa sijaada sujjuut ca boo paree nga lem ko yóbbu boo demee nga raxas indi sa maska ah ñu teg ci bunt bi euh, euh, saabu ak ndox wala ay gel loolu lañu mujj ni nañ seet loolu ba xam buñ ko yóbboo daañ nangoom déet kon loolu ca lañ nekk su fekkee ni tey yi la ñuy def réunion lañ ñuy indil loola la ci la ñuy jaar mais man daal nii laa gisee jàkka yi ma jàpp ni euh, li nga xamante ni moom la ñu waroon def mooy ñi nga xam ni ñoom la yàlla may tuuti xam-xam ñu bañ a def ni am nañu xam-xam parce que loolu moo leen tënk ñoom tam gis nga xam-xam yàlla def ci xaw fiir ndax tuuti rek la ci joxe tuuti rek la sàkk ci xam-xamam tuuti tuuti jox ko am ñoo ca tuuti joojee am ñu ca am tuuti am ñu ca amul dara waaye kenn mënu ci am lu bari lu tuuti noo ci amee lu bari wa maa utiitum min al ilm illa qalila loolu yàlla wax yàlla nee na xam-xam maa xam lu tax duma ma ci joxe lu bari <clears throat> gis nga doomu aadama buñ ko joxoon lu bari mu def musiba du yéene nga dégg lii nga xam ni ñu ngi nuy bëgg a rey virus bii ñu ni ak nit moo ko defar déggu leen ko waaw kay defar virus di ko tasaare te tuuti la am ci xam-xam buñ ko joxoon xam-xam bay wiris yi yàlla yi denc kon musibaam moo tax tuuti rek la ko ciy jox ndax comme moo nekk xalifaam ci kaw suuf fokk mu di ko mosal ci mbiram ya tuuti yoo xam ni da ko xool ba xam nan nga ko ci war a doxale loolu rek la waaye yàlla bëggul kenn alku su ko defee euh, beneen bi ci topp ci loolu mooy jàkka yi buñ ko mënee ubbi baax na de waaye na ànd ak mesure de accompagnement noonu ngeen koy wax yéen jàng tubaab maanaam la muy àndal nan koo respecté jàkka yi nag mooy barab bi nga xam ni moo gën a naqaree yor ndax koo wax dara day defe ni da ko yab looloo ca nekk yow da nga wax dara loo xamante ni nii dangay xam ni lii baaxul wala nit koo def loo xam ni lii xam nga ni lii baaxul mais ay bala nga koy wax ndax ginnaaw ga moo tax moo tax jamono bi ki xam Euh, bu amul sance mi ngi ci mbugal euh, loolu la loolu la woykat ba wax sax ida kunta la tadri fa tilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu aadamu xam nga lu ko waral mooy yow mi xam ni lii dafa xaram nga xam ko ak nit wax ko ba noppi ni la sëñ bi ah mu la ëpp daraja tax nga ni waaw wala nga ni pat te da waroon a wax loolu day wax amul wax ko nag waxin bu rafet mais boo ko waxee mën na am ñu jëkk ñu jàppale duur kon li ngay def mooy noppi noppi googu nag am na luy travail sa biir xol di la naan waroo koo def sa damir sa conscience du d'accord ak yow lii dara waru la koo jaral lii dara waru la koo jaral jooju moo lay gaañ moo tax yow mi am xam-xam ngay am problème ki amul xam-xam nag problème mooy lu ko neex wax fu ko neex la koy waxee nu ko neex la koy waxee kooku moom noonu lay doxale su ko defee li tax ma ni jàkk yi ubbi ko baax na mooy euh, yonent bi salaa salaam nettali na ne ni inna lillahi malaikatun yatufuuna fi turuq yaltamisuuna ahla dikr fa ida wajadu qawman yadkuruuna allaha azza wa jal tanaadaw haluma haajatikum fa yaxfuunahum ila samaai dunia fa yasaluhum rabbuhum wa huwa aalamu maada yaqulu ibaadi gis nga yàlla day yónni ay malaaka jour bu nekk ci mbedd yi ñuy wër bu ñuy wër dañuy xool kat ay nit ñu tasaloo lu ñu fay def mooy jaamu yàlla di sikkar loolu rek la ñuy wër ñoom loolu mooy seen liggéey su ñu fekkee ay nit ci jàkka ñuy sikkar wala ñuy tudd yàlla wala ñu comme li ngeen jóge nii nga xam ne da ngeen di tafsir alquran pour nit ñi xam ko bu ko defee ñu ni yàlla ah gis nañ ay nit de mu ni xam nga yàlla moom xam na lépp mais mu ni lan lañuy def ñu ne ah, ñii daal ñeenti affaire lañu fi nekkee yusabbixuunaka wa yukabbiruunaka wa yumajjiduunaka wa yaxmuduunaka nee na ñetti ñeent yi lañ fi nekkee ñoom daal ñu ngi fi nekk di def ay màggal waaw nee na ñu ngi lay màggal ñu ngi lay jox sa gëdda ñu ngi lay teral ñu ngi lay sant yàlla lañ fi nekkee mu ni waaw ah, ndax ñoom dañu maa xam ba di ma defal loolu dañ maa gis ñu ko gis nuñ la waaye dégg nañ la ci alquran mu ne ah, wax leen ni buñ ma gisoon dey daañ ma gën a màggal daañ ma gën a teddal daañ ma gën a jaamu waaw léegi nag lu ñu lu ñuy wax lu ñu bëgg mu laajte yàlla laajte ni ñooñu lan la bëgg pour won la ni maanaa ci jàkka yit solution mën na fee jóge comme ni mu mën a jógee ci kër yi ndax la ngay wax ci jàkk ja boo amee kell te wax ko ci sa kër yàlla nangu yàlla laajte malaakam yooyu mu yónni woon sama gaa yooyu nekkal ma foofu lan lañu bëgg ñu ne ah li ñu bëgg daal mooy aljana daal lañu bëgg ragal safara mu ni waaw dañoo gis aljana ba di ko bëgg wala dañoo gis safara ba di ko ragal ñu ne gisuñu ci benn waaye dañ koo dégg rek sa yonent bi wax ko ñu gëm nii li nga wax dëgg la mu ni maa ngi leen di seedaloon nii jëgal naa ko benn malaaka ni ah eh, yàlla yow kat waa ji léegi la fi ñëw léegi la fi ñëw ñu ne ah mu ne ah léegi la fi ñëw mu ne waaye comme toog na rek bokk na ci njëgal gi moo tax foo rombee nit di def lu baax jaar fa toog fa ab diir ndax njëgalu yàlla ga mën na la cee fekk beneen bi ci topp itam mooy maanaam nit ñi dafa am lu xew léegi te xewul woon fii ci senegal mooy yàlla dafa am ay awliya yoo xamante ni moo leen tànnal boppam nëbb leen ci biir nit ñi parce que juróomi mbir yi yàlla daf ko nëbb ci juróomi mbir yi yàlla dafa nëbbu euh, yërmandeem ci njaamoom ku koy jaamu ku ne nanga jàpp ni da nga mën sa tese da nga mën sa tese képp koo xam ne danga koy moy na nga xam ni mbugalam mi ngi ko nëbbu ci ki koy moy danga nga mën sa moom képp koo xamante ni itam da def laylatul qadr nga di ko wut te bu ne nga màggal mi ngi ci biir weeru koor da nga tase moom képp koo xam ne itam maanaa ah, da ngay julli julli juróom salaatul wusta nee na di nga tase moom gis nga yooyu lay daje dugal ko ci biir ba nga xamante ni li muy bëgg mooy nit ki fokk mu taseeg moom awliyaaw yi nag léegi dañ leen xaw a sobantal tuuti te yàlla waxoon na ni ci xadisul qudsi man aada li waliyan faqad aadantuhu bil xarb yàlla nee na tëgg naa guerre koo xamante ni ni da fas yéene di euh, euh, ayibal di euh, noonu sama waliyu yi nee jaam parce que wali yi lam tas lam daj ba nekk wali yi moo tax bul defe ni mukk wali yi dañuy jékki-jékki rek ñu tànn leen ñu nekk wali yi déedéet dañuy daj lu ne seenub xol même bu fekkente seen yi jëf du ci àgg itam seen xol ba day gën a sell leneen lu dul moom moo tax yàlla wax ni wa ma taqarraba abdi ilayya bi cheyin ahabu ilayya mimma aftaradtu yi li nga xam ni yàlla nee na maa ko farataal sama jaam yi la ma gën a bëgg mooy ngi def loolu julli juróom weer woor woori koor natt azaka aj màkka dégg nga ak yi ci topp euh, ba nga xamante ni julli mat euh, juróom mat na nee na waaye nag bu dee jàmba ba ca di sas boppam loo xamante ni nii man sasuma ko muy nawaafil yi ba def ca loo xamante ni nii nag day mujj yàgg muy man may moom moo tax mu ni euh, la wala yazaalu abdi yataqarrabu ilayya binnawaafil xatta ahbabtuhu fa ida ahbabtuhu kuntu samcahu alladi yasmacu bih wa basaruhu alladi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani actaytuhu wa in istacaadani la ucadi eh, la ucidannahu rawahu eh, abi hurayra nee na gis nga lii moo tax itam ba tey pour wax la ni dékk sa loxo yi ñeneen ñi nga xam ne ñoom nga gën a am yaakaar ayul ndax yàlla moo wax lii yàlla nee na sama jàmm bi du jóg di ma jege jegelu di ma jege jegelu nga xamante ci ay naafila léeg-léeg mu jóg naafila fukki rakka ñaar fukki rakka te santuma ko ko nee na muy def loolu ngir yaakaar ni man war naa ko mën a fay loolu mu continuer ci ba mu jàgg nag man maa nekk bëtam lu xool man a lu mu wax man a lu mu dégg mën a kon kay soreetu mooy ñi ñu yaakaar dem ci ñoom di leen ñaan yaakaar ci ñoom xamuñu ma nga ca am déet waaye mën na caa nekk nag nee na ñooñu buñ ma laajee ak luñ ma mën a laaj nee na danaa leen ko jox nee na suñ luñ ma muslu ci man ni yàlla na nga nu musal ci loolu nee na laa mu xasam la ci boole ak nuunu tawkiid loolu ci arab ñi ko jàng xam nañ ko maanaam du lu mën ñàkk waaw la uidannahum nee na danaa leen musal ca loola kon nag jàpp naa ni nga dem fa nga am yaakaar defe ni ma nga fa wóorul ma nga fa yow it booy dem bul ni force ma nga fa bul ko ko ñaan ndax yoru ko da koy ñaan dafa am nuñ koy defee mais boo ko defee ni ñu ko war a defee noonu lu sell la lu yàlla digle la boo ko defee neneen nag nga xam ne da ngay mel ne waa ji sëñ bi da koo yor wala euh, nit ki ki ngay dem da koo yor bu boobaa nag yaa ngay bëgg dugal li ñuy wax bokkaale waaye bu dee da ngaa yaakaar ni ma nga fa kooku yàlla li ko digal nga dem ko def ko moo tax noonu lañ ko war a defee te itam yaakaar naa ni sénégalais yi euh, am na ñoo xam ni noonu lañ koy defee donte laa nag ñu bari duñ ci d'accord nit ñi moom ah du ñu d'accord ndax yonent bi sax yàlla dafa ko wax ni ko fa euh, fa in kaddabuka faqad baru rusulu min qablik yonent bi dafa dem ba mu jàgg mu jàpp ni ah, maanaam niñ koy weddi daal ëpp na mu xamu mer yàlla nag ni ko jëkkuñu laa weddi te duñ la mujje weddi ñii la fi jiitu woon ñëpp weddi nañ leen yow lan lan moo tax nga ni duñ la weddi moo tax itam soo waxee ba noppi da ngay sànni noonu rek ah, wut say euh, euh, adil la teg waaye fokk nag dana am nit ñoo xam ni daañu ko weddi ñooñ nag buñ la buñ la gaar waaw kon su ko defee su fekkee ni yàlla dogal na euh, matal nañu minutes yi ah li ñuy def rek mooy sant leen yéen waa Louga TV vraiment sant nañ leen ci xel mi ngeen def ci ñun ndax itam wax dëgg yàlla mën na nekk nekku fi waaye itam loolu ñu ngi leen ci boole ngeen ci seen bopp nuy d'accord na noo bokk ci yéen incha allah loolu xam ne wax ngeen nu ko te nu mën ca dara incha allahu taala daañ ko def ndax amadi mii suñu mbokk la yéen tamit seen mbokk ak kami leen fi waa wàcce nii sama élève la woon wax dëgg yàlla wala bu wekkee ni du moom itam di magam wala rakam waaw moom papaam joxoon na doom su ko defee ñoo ngi leen di di leen gërëm bu baax di ñaan yàlla subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne moo teg mbas mi yàlla na ko teggi moom rek moo ko mën a teggi yàlla na ko teggi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di sant di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf